Euh, wàllu am doom dafa jafe dafa méttee faj dafa të médecine moderne bi souvent nga gis koo xam ne def naan la dem naa fu nekk faju naa bay bëkkatee aw ma résultat dem naa ci médecin yi def naa analyse yu nekk aw ma résultat am na ci ñoo xam ne am nañ ci cas yu sérieux am nañ nekk nañ ay kilifa dem ba war a euh, retraité te duñu am kenn kuñ bàyyee seen gannaaw te loolu lu métti la kum dal di nga xam ne loolu lu métti la moo tax ñim dal duñu am jàmm guddeeg bëccëg da ngay gis kuñ am ci moom yaakaar rek ñu dem ci moom